bismillah inna waliyillah wa ma tawfiq illa billah allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yu ñuy topp ci seen web tv al azhar point com si nañ tey ci seen plateau Touba paradis sur ngir yeggale tomb am solo bi nga xam ni tàmbale woon nañ ko fi te mu jëmoon ci waxtaanee wàllu urbanisme ak dëkku Touba fi nekk nii. ñu dalaloon fi nag sunu gan gu tedd muy sëriñ Amadou Guèye déggoon ngeen première partie bi ci fànn gi nga xam ne ci lañu waxtaanee woon ci ñoom jaar-jaar ak expérience yoo xam si am nañ ko ci yëngu ci rawatina surtout gis-gis ak bëgg-bëgg yu ci sëñ Saliou Mbacké amoon. ak jéego yoo xam si def nañ ko ci ak xaj na yenn ti contrainte yi ci am euh, gisoon nañ ko ci euh, fànn bu njëkk ba tey jii nag ñu war a ñëw yeggalee waxtaan wi nga xam ne sooboon nañ ko sëñ Amadou ma jox la ko nuyoo ba noppi salaamaaleykum. Ah, kon euh, maa ngi la nuyu baax di la sant di gërëm euh, mbool yi dellu ak di ñaan suñu borom defal lu tawfeex ba euh, mbir mi liggéey sëñ Tuubaa ñëpp déggandoo ko ci xol ak xal ak rafet. jërëjëf sëñ Amadou waxtaane woon nañ ci pàcc bu njëkk bi lan mooy urbanisme ak it boobu ba léegi saa Saliou moom gis-gis bi nga ci amoon bi ngeen ci waxtaanee ba noppi. ak lëm ca bëggoon ak jéego yi nga xam ne doxoon nañ ko ci ak xëj na yenn ci défi ak yoo xam ne amoon na. ba <coughs> tey yéen a ngi ci yéen a ngi ci loolu di ci am yaakaar. Mm. ah tey nag ñu war a dikk ci <coughs> yenn ci laaj yoo xam ne dañ koy am puisque urbanisme dafay mel ni bokk na ci euh, wàllu décentralisation euh, yenn ci fànn yi nga xam ne si état bi transféré na ko au niveau local. kon <coughs> plan directeur bi nga xam ne si de l'urbanisme bi war am ndax état. mooy ki koy saytu wala au niveau local lañ koy def wala dafay am bu ñu def euh, sur le plan national ba noppi war koo dëppale ak te chaque zone loola yan kii nga ci indi bala ñu dugg ci waxtaan. jërëjëf euh, wax nga posé solo ndax urbanisme dafa yaatu euh, suñu waxtaan wi paase waxoon naa ci wàllub këyitu kër yeeg permis de construire mais plan directeur d'urbanisme dafa am solo ndax mooy plan bi nga xam ni. mooy seet dëkk bi ni muy màggee fii ak ñaar fukki at ci kanam juróom mm-hmm. nga fukki at yu ne fii laa yëm bu ma jublee foofu war naa tëli tëli nangam wala war naa wut école nangam wala yooyu plan directeur moo koy def mm, te dëkk bu nekk war naa plan boo xam ni ndax boo ko deful sa ni ngay doxalee daañu am jafe-jafe loolu feeñ ne sax ci dakaar gi ci jamono yi passé yi xam ne at yi weesu jamono yi ab président ab Senghor mm-hmm. doon toog ba dëkk bi rëcc leen ndax dëkk da jiitu mu ñëw nga koy xool. mais boo rëccee day ay problème mais heureusement sax lii sax ñu ngi dab dabaatal. Mm-hmm. boo seetee ñu ji bi ñu jëlee tey pôle urbain Diamniadio loolu la dem na xam nañ ni Dakar fees na ay Pikine fees na ba léegi jam Diamniadio ak Lac Rose xam lu bees la foofu nag leen def ay projets yu mag yoo xam ni pour la leen daloon ca euh, ay géejo way wax naan ba boo amee inondation nit ñi lab loolu ba leen dal Touba gii nag man de yàlla ma taw féexale euh, bi ma ñëwee fii en 2003. Mhm. sama service wax naa ko ci wee passé. Mhm. xamoon naa ni Touba amul plan directeur. xamoon ah naa ko man. Hmm. Ah, bi ma ñëwee laa ko xam ah te booba Abdoulaye Wade bi ñu fi ñëw 2004 nag service mu ñëwee fii ci wàll màggal gi ma ñaan audience ànd ak président comité rural bi ñuy wax Matar Diakhaté. Hmm. keroog ba nekk président. dama ne ko monsieur le président Touba amul plan directeur. mu daal di tàll ñaar loxoom ni loolu moom sama kumpa la. daan loolu mënu wéy. ndax plan directeur boo ko amul li ngay liggéey yëpp amul tegu ko ci dara. ah daal di joxe digg nag sama ministre booba maa ngi taw Mbàkke waaye sama ministre ma nga Dakar jox Serigne Sy mu jox ko ndigal ne nga na ngay préparer plan directeur Touba. ah comme man xam naa plan directeur dafa jafe. ndax dëkk boo xamul cosaan ba planté dana jafe. effectivement man maa ni ministre bi kat borom dëkk ba di sëñ Tuubaa maa nga fee muy sëñ Saaliw bu fa demee bu ko bu ne laaj bu ñu ko waxee dana teg ci yoon. Hmm. ah yàlla dimbali ñu ñëw fii sëriñ bi maag ministre bi benn bis ba defee réunion CRD mu ne fi ñëw wéetoo moom keroog ma ne ko Mbàkke de ministre bi de sama kilifa la waaye sama rakk la plan bi ñuy def nag plan yu jafe la. ndax def na ko ci Ndakaaru mu rëcc nu ak yoon ñu bëgg na plan bii mu Mbàkke ñam fi ndam mu daal mu muy ndeysaan mu muy muyam jo daa jóg toog tàllal loxoom jublu ko Touba Fall ni tubaa de Touba la jëm ñu leer nañ loo xam ni kay musu rek dafa ni Touba Touba la jëm jëm foofu milisi bi moom it waaru ndax li musu ko dégg ndax loo xam ni kii dafa jóg ni la tàllal loxo ba noppi fee la jëm loolu musu ko dégg ci loolu nag ministre bi ci boppam ngir sagal sëñ Saliou ci loolu mu def loo xam ni euh, bu dee enfrain haute portée la mooy lu yéeme loo xam ni ci xalifa sëñ Touba ak ji mu jooju at mu amoon jóg toog nga ko affaire fekk moom lu jëkk waxoon na luy urbanisme laaj la ko tey mu ñëwaat ni plan directeur bi Touba la jëm kii mooy kii mooy urbaniste bi mbooy bi léegi ministre bi léegi nag li may li may def plan directeur naa def mais bala muy def loxoom bii mu tàllal nii naa ko projet muy ZAC Touba Fall moo zone d' aménagement concerté lan ci bëggoon mooy sëñ Saliou fa mu jëm ci Touba Fall diggante Touba fi mu yem ak foo jege dem Touba Fall zone boobu mu créé lu yees peq loo xam ni ëllëg ko fi ñëw daa xam ni sëñ Saliou fii muy ZAC mooy zone boo xam ni da nga koy da def lotissement bi defar lotisu ko def kër yi indi fa courant indi fa ndox indi fa yoon yi def ci jaba ak école yi ba mu mat ñu li ñu dëkk. bokk na lotissement boo xam ne da ngay def rek li ñu dëkk. loolu ba ko defee euh, jamono yooyu ñu def appel d'offre jamono Sëñ Saliou récemment may fàttali que ne ba mu ñëwoon ko euh, appel d'offre ci journal bi dafa dégg ba ni waa waa Mbacke na ci am man ko Mbacke de Mbacke bu ñu bëggee am sëñ ah, boobaa de naa leen tànnal ñoom fi ñuy nekk loolu man maa ngi fàttali bu baax moom daana wax ni Sëñ Saliou bëgg naa lu am Touba naa bon moom bëgg na ko moom déjà am na idée li ñuy wax intercommunalité. bu dee également communauté urbaine xam nga ne Touba ak Mbacke ñu war a ànd ci wàllu àndandoo ndax sëñ Touba fee feeñe fii la dëkk. Hmm. Ah, ci loolu nag plan ba ba mu ba defee appel d'offres yàlla dogal nag jamono yooyu ministre bi nekkoon LD LDPT ñu génn gouvernement bi Assane Diagne ndeysaan mi ko wuutu moom it jóg na ci mais sottiwul ba mu gaañu waaye sax boobu. di projet boo xam ne ba tey itteel la ndax projet boobu euh, dana bu ko bu ko taxaloo dana mat fukki junni parcelle ak juróom quinze 15000 parcelles yoo xam ne entièrement viabilisées yoo xam ne état bay def lépp jox ko xalifa bi monsieur Sidi Mokhtar kon loolu dañ ci baax nag nit ñi kër yi amul waaye sax li tax mu jóg daal mooy surtout daayira yi ak ñi am fédération ak coopérative jàppale leen ndax day fekk zone boo xam ne am na courant bi ñëw na te lépp état ngay defar. ah d'accord léegi nag euh, projet boobu. dugg ñëwaat na ci si Serigne Serigne Serigne kii bi Serigne Jili Kebe mii moom it mel ne tey jii te ñuy wax waxate lettre ba dem na ci ministre bi fi nekk mi Farba Farba Diène Farba Sarr pour wax ko projet boobu kat sëñ Salif bàyyi woon ñoo ngi laaj mu amaat am na ci yaakaar yàlla na am. waaw plan directeur itam euh, mel na ni plan directeur bi am na waaye euh, mairie bi commissariat bi yëgul yëguloon nii am na décret waaye fii ne lettre dem na pour ministre bi ñëw war na décret bi. war na plan directeur bi ak ZAC boobu kon loolu lépp damay indi sëñ Saliou moom lu mu bëgg dina am. boo ci taxawee yàlla ngi dimbali. macha allah ndax njëriñ dëkk bi la te ñëpp daan xam bu taxawee daa xam njëriñ dëkk bi la. Mm. loolu daal laaj bëgg a toj bi ak ZAC Touba Fall boobu. loolu mel na ni am na solo. Mm. xam naa ni ginnaaw Touba mi ngi yokk. Mm-hmm. te plan directeur bi mel na ni wax nga ni barab bu mu ci mën a doon. Mm-hmm. mënta ñàkk ñuy formuler une vision xëy na mm-hmm. ci benn période bu précise. ngir yokk googu ak dëkk bi fa mu jëm. Mhm. te mel na ni Touba dafa am particularité. Mhm. maanaam Touba ni muy màggee gaaw na lool. Mhm. mais compte tenu ak loolu kon dafa mel ni waroon nañoo farlu lool ci fànn gu mel noonu. waaw loolu la loolu wax nga la am solo ndax tam xam nga dëkk bi wax naa sànq wax naa keroog ci bi passé ni c'est une ville à croissance rapide mooy dëkk boo xam ni fukki at yu ne bu fekkoon tey jii un million la ah deux mille vingt quatre day nekk 2 day day doublé day doublé population lu rëy la te Serigne Saliou ba muy wax ne Touba Fall la jëm plan directeur boobu nag gisaguñu ko waaye bu ñëwee tam mën na ko dab dabaatal dëppale li sëñ bi bëgg ndax Touba moom xaarul ndax euh, maa ngi fàttaliki bi may liggéey sama ministre waxoon ne ma ne ma am na tubaab yu bari ñëw ci dëkk bi senegal jàpp nañ ni ñoo tubaab yi dañu jàpp nañ ni fii ak at yu néew Sénégal dana bàbbeeku Sénégal Babacar ñëw dëgg si diggante Touba Njaaréem ak Daaru Musti mooy mooy zone Touba Fall bi rek kon loolu war na ci jóg jiitu ci kon nag am nañu yaakaar ne plan directeur boobu xam ne lettre bi na lettre bi bu ñëwee fii daana xam moom lu mu def bu bu amee itam yoon may na mairie bi ñu so ñu ñu ñu changé ko daanaka dëppaleeg ak jamono yi di xew li nga xam itam maa maa également profité occasion bi Touba am na am na rëq-rëq bu am ci dëkkuwaay yi ñëpp xam ne ne Serigne Saliou ak Sëñ Abdoulaye ma ko jiitu ak Sëñ Moustapha ba ci say xalifa bi natt yi bari na mais natt yi li ñu bari bari ah kër yaa nga fa nit ñi mënu fa dëkk ndax amul ndox amul courant amul mbedd amul assainissement kon nit ñi day yaay seen kër wañu taxu kon loolu ci wàllub également itte bokk na ci maire bu bees bi ak ci commission boobu xam ne jileeg yore bokk na ci daan demande état bi ñu ñu wax viabilisation de lotissement. effectivement ndax lotissement bu fekkee ne quartier am na amul ko ndax fii bari Touba moo tax sëñ Saliou Mbacké yàlla nag yàlla fay ba muy dajale ba fukki milliards bëgg def ñaari téeméer kilomètres loolu la bëggoon ndax quartier bu amul yoon nii dañu dee seen yoon kon dëkk bi fi mu ne ci wàllu yoon am na jafe-jafe am na déficit yoon yi bërigul surtout quartier yu bees comme ay Saam ay ay yeneen saat yoo xam ne dëkk bi dëkk bi si laa yëpp laay wax yoon des na te loolu war na ci jóg bu ñu bëggee dëkk bii ni ñu dëkk bu ñu bëggee également kër yi nga xam ne kenn dafa def dara ñu dëkk ko faa ay amee yoon ndax yoon bu amee rek mooy boot courant mooy boot mooy boot ndox waaw yoon yi loolu c'est important loolu itam commune maire bi tam am na ci itte xalif bi tam ñu ngi ci waaye day itte joo xam ne war na ci taxaw bu baax a baax dëkk bi amul yoon déficit bi bari na boo jëlee jumaa ji rek dem ba yëpp ba dem bay dem bay dem bay dem yoonu ngaabu amul benn traverse bu am jaar nii amul dafa dafa dafa retard à part corniche bi amul tëli yu jaar nii yu jëm Oumy Khora Saam wala jëm Daaru Tanzil wala yu am fi boobu retard moo la te li ma wax fii mu am ci yeneen yeneen yeneen yeneen quartier donc foofu tam am na itte joo xam ne war na ci taxaw te ko mooy mairie bi kon mairie bi war na def également si itte ci wàllu tëli yi état bi tam na ci def góorgóorlu boobu itte ci wàllu tëli ànd ak mairie bi waaye am na tëli yoo xam ni manqué na te tëli bu amul day jafe-jafe loolu daal ci wàllu urbanisme ci wàllu plan bi donc plan directeur bi yaakaar naa ni daana daana ñëw wax nu lan la ndax décret bi signé nañ ko la koy la koy changé wala wala jublu ci daan ci waxtaan ak euh, ministre bi foog mooy mairie bi loolu lépp nag mairie bi la mairie bi kon léegi comme ñoo am na ne mairie am na sas ndax loolu ñoo koy doxal sëriñ bi di ko doxal ñoo koy doxal ci turu sëriñ bi taxaw ci am sa fulla ndax fii ne maire yi bari na maire bi nag yaa ngi laaj kon ku nekk maire da nga am si itte ak sa fayda taxaw ci loolu daal laa am ci li may wax loo xam ni maa ngi koy wax ci fii en même temps di ko wax également maire bi. effectivement kooku c'est le maire maire mooy compétence boobu. ak son équipe nañ ci taxaw tey bañ a bañ a noppal nag ndax yéex bi moom doo toogee dëkk bi dem yoonam donc dëkk bi ci wàllu ndox ci wàllu courant même assainissement bi xam ne tam am na assainissement bi. Touba mooy dëkk boo xam ni ba tey amul benn kër boo xam ni da nga ko branché égout amul yëpp efes boo xam ni bëgg démb dégg ngeen ci journal bi waa daal Khoudoss ñoo wax ni yoo yi amul effectivement yoo yi jafe na yoon yi manqué na yooyu itti la yoo xam ni foo foofu foofu foofu maire bi nag ñoo ci taxaw xale bi moom na man def Mbàkke yàlla na fi yàgg te mais sa c'est le travail de la mairie ñu war am itti taxaw nag di dem ci Ndakaaru seet fu am projet bu seen ay jumelage dëkk bi baax dëkk bi dëkk mais doguma la sax mais xanaa au niveau de la mairie loolu ñuy wax tuddee la coopération décentralisée euh, coopération internationale bi jumelage yi am ci kii xanaa yooyu initiative yi du ngeen ko faral yooyu man nekk bu ci mairie bi mais xam naa ni li nga wax léegi euh, itte la ndax tam am na loo xam ni Touba yàlla may na ko sëñ Touba yëpp defar na ko. ndax xam ngeen ne en 1994 xaw ma ban an la sax dama bañ def erreur ci 1994 xaw ma 1900 waaw. Mhm. waaw 1904 1994 ah xaw waaw Touba da ko comme dëkk dëkk royukaay. Habitat def ko Istanbul. Istanbul c' était en 96. 96 waaw 96 waaw effectivement. 96 ñoom suñu Moussa Saliou demoon ville moderne. effectivement mooy da nga ko takkal médaille. Mhm. Mhm. dem a jël médaille wax naa leen ni tey médaille boobu bu ko jëloon tey ak këyit yi toog gouvernement bi ñu jox suñu xaalis ñu mën nañu jox suñu wàll ndaxte pour liggéey rek la jaajëf. bien sûr ONU ñëpp fi nekkal. ndax boobaa lan gis ONU mooy xale bi fi nekkoon mooy defar lotissement am laaj benn état kon loolu na ko génne mu ko génne tey rek ak ànd état bi man na am na ay suñu milliards te loolu te damay wax ni euh, léeg leen ñu wax affaire at mu nañu am mm, suñu maam Mor Mbacke bu sëñ euh, Moutala. yàlla yàlla may mooy bu dëgg wér la bàyyam defaram la bàyyi la bàyyam bi sëñ Moutala journée Cheikh Khadim yooyu man de pour man dama ni maire bi na ci profité bu boobaa ba amee journée fenn ñu préparé suñuy suñu disque suñuy suñuy suñu de suñuy CD wax dëkk affaire dëkk bi ci anglais. bu demee pose nga foofu ñu fexe ba jubale ak ñoom. ñu jàppale ñu. li may mujj ci li nga wax affaire décentralisation. Hmm. jamono Sëñ Saliou fii booba conseil la. Hmm. booba Landing Savané bu ko indi fii ay ay ay waa Thaïlande ay opérateurs dëkk yu xam ne dama dëkk bi. boobu mel ne sax communauté rurale bi dañ ko néglige dañ ko dañ ko woyofal mais Landing Savané bi ma bi ma soññee Matar Diakhaté ñu jaaj Sëñ Saliou Sëñ Saliou këram maa ngi fàttali mu day teg kuréel dafa teg kuréel ni dafa daane say mataar taaru dëkk bi li ñëriñ dëkk li ñëriñ nit ñi bu leen ma ci tàggu fii ak bitim réew daf ñu bu leen ma ci tàggu daal kon war ne ni loolu allez allez extérieur xëy na man oma xam sax waaye sëñ Tuubaa moom tàgg na fépp na ko jëli macha allah mu am ni waaye bu ñu toog bi di xool itam ah du dem fenn de na ko fi ne yi ndaw yëpp ñoo ngi wut ay seen jumelage nan dem jumelé ay New York jumelé ak Médine Munawara dem indi suñu yëf sëñ Tuubaa fi ne waaye nag surtout affaire ONU Habitat boobu ko grand la boo xam ni lan lay may man ci am ay suñu milliards yu jeex defal suñu dëkk assainissement bi defal suñu mbedd mais dëkk bi rafet na ci mbedd mbedd amu fi te bu tawee ci am na quartier yoo xam ne doo fa man a dem jumaa ji rek boo xoolee à à cinquante mètres am na tëli yoo normalement jumaa ji bi li wër corniche li wër corniche bi tey jii lépp dafa war a am goudron taaru ci loolu ci laay ñëwaat sëñ Saliou ci la mu ni dëkk day am également urum urum bi daana wax ni bëgg naa bu amee élection day wax ni bu ma sañoon de li wër corniche bi li ko li ëmb corniche bi lu lu xasaayit alxuraan mu ngi dégg leneen lu ne ci biti ba ci waxoon ne banques yi ñu génn leen boobu ba ma amee man maa ni man maa ni leen seen saa am na idée projet li ñuy wax tubaab day wax ni qui trop embrasse mhm. mal étreint mooy boo bëggee gàddu lu bari sa loxo de da ngay wut loo xam ne daa ko tiim nii. Serigne Saliou xamoon na ni doomu Serigne Touba jooju dëkk bi day dem rek te am na barab yoo xam doo ko mën ko mën a gérer waaye dana fexe ba Touba li mu condition bi moom xam ne Serigne Touba quartier yëpp moo ko sant di guy mbind di di gédé jumaa nekk ci loolu noonu ko te lu rëy la lu lu ko rëy na ko defar ba mu baax loolu ba tey tardewul tey jii ci wax naa ko waa mairie war na itti yoo xam ne waxtaan ci xalifa bi ci ci loolu sax mooy tàmbali istati bi ñu bëgg fa ndax urum jooju bu taxawoon rek statut waa taxaw. maanaam statut spécial bi ñu tudd. waaw statut spécial la ñuy wax mais ñun ñoo xam ne ñu bëgg waaye pour man. bu ma bu bu bu Seye Sall na ko mooy li wër jumaa ji moom li wër corniche xam ni Sëñ Tuubaa ko moom. moom la man maa ngi fàttali maag maag Atou Dia ñu waxtaan ci ñu tudd ko zone France religieuse mais loolu tey boo bu fekkoon tey mairie bi waxtaan ak sa xalifa bi waxtaan ceeg moom bu am idée projet boobu. état bu loolu waxee daal daal di def statut boo xam ne dana bëgg dana méngu li Sëñ Saliou bëgg mooy li wër jumaa ji li wër corniche bi muy loo xam ne boo ci bind rek gis Serigne Touba di ko xeeñ mais li nga gis fee ca corniche yu jóge ci ci ci ay tax-tax wala ay ay ay ay jaay-jaay moo ngi gis ba ci jumaa ji amul lumière amul da tëli yàqu na mais li wër corniche bi tey jii war na taaru fépp nekk ay goudron ci loolu sax man damay wax ni station d'épuration bi nekk fii dana ko génne marché bi nga ne marché marché bi dugub ji ñu génn la lii la du ërum Sëriñ Tuubaa muy lu taaru rafet lii mën nga ko régler moom ñu ñu ko doxal waaye lii mënul ñàkk mhm. mun mun mun toog nag la ngay la ngay la ngay jaay fee ca buntu buntu police euh, poste contrôle mhm. ci ci taar ci wet jumaa ji mhm. loolu mun lu béy loolu nag xalaat la leer na ma ni mairie bi bu ci waxtaan état waxtaan ci xalifi bi leer ak la sëñ Sall bëggoon moom dañ ci ànd ndax man damay wax ni Serigne Sall lu mu bëggoon taxaw ji Alaaji Baara wax kii ci la nekk mais am problème communication la Serigne Sall daana wax ni yéen waa comité rural bi lu ngeen waxal xaw ma ko ko wax il faut ñu wax day wax sëñ tey nag kooku maire bi la le maire ci boppam bi dama sëñ bu ko waxoon du ci am dara effectivement donc na ko wax ne que lii ak lii ak lii du leen dóor nag loolu am na solo lool sëñ Ahmadou euh, muy problème de communication. moom nga mujjee léegi nii. mel na ni tudd nga fi yeneen problème yu bari yoo xam ne xëy na ku dégg exposé bi da nga naan ñun ñii kat dese nañu liggéey bu rëy. Mm, tàmbalee kayitu kër yi. Oh. plan directeur ah, euh, euh, euh, ZAC ZAC Touba Fall bi ngay wax ni. Mm-hmm. permis de construire et cetera et cetera. ba ci fii wax nañ ni daanaka mel na ni kër yi nekk Touba sax amu ci benn boo xam si c'est branché à l'égout. loolu kon mel na ni am na liggéey bu rëy bu ñuy xaar. te nee nañ xanaa fi xanaa fi guy mbind mu branché wul ko. boo ko ay fa sama ci bu ñuy wax ni Touba mooy ñaareelu dëkk bi. waaw loolu la. gën a rëy ci senegal donc loolu dafay mel ni <coughs> kon euh, ab liggéey bu rëy mi ngi suñu kanam. Mhm. boo xam ni it euh, yaakaar naa ni sonk rek moo fi war. Mhm. te it am nañ ci yaakaar. am nañ ci yaakaar ndax sëriñ bi la mu ñaanoon suñu borom. Mhm. suñu borom def nga ko. ba muy nekk fii ci dëkk bi di Touba mu koy sañ ci moom kenn euh, nekk fi ay ab xàll. ak i rab rek nekk fi mhm. mu naan euh, wante jaaru naa wa neex ma jaaru yaa xayu yaa xayoom yaa jabaaru mhm. euh, nekk fa laxasu nu ne woowee na ko suñu borom nu nu ne tudde na ko mhm. nekk fi di wéetal boromam ba boromam nangul ko ca woo bam ko woo wax na ci xasidam googu ñuy wax Matlabul Fawzayni euh, ñaan fa loo xam ne si sëñ Abdou Lahad nee na ba mu ko ñaanee rek la ko suñ borom nangu ba tax na wax na ni wajal ilaahi maskani tuuba abad mis nas miha bi jaaye jaayee xeera man abat kon nag ginnaaw ñaan na suñu borom mu defal ko tuubaa gi mu mel ni turam wa ca àjjana loole am nañ yàqin ci ne dana am sëñ Abdou da cee teg lu am solo ba mu ko waxee dafa wax ni man Abdou laat li sëñ Tuubaa bëgg ci dëkk bi fekke ak wuute laa ci yemale waaye li sëriñ Tuubaa bëgg dana am ah. man Abdou Lahad nag fekkee wuute laa ci yemale jëm may jóg def ko yàlla defal ko lu mu bëgg mu bañ koo def yàlla indi mbindeef yu ko def donc loolu rek li mën am ba tax na kon ginnaaw lii moom luy am lay doon kon mel na ni am na liggéey yu rëy yu taxaw suñu kanam te képp kuy bëgg or lislaam la ko gën a bëgg Sëriñ Tuubaa la ko gën a bëgg mel na ni kon désordre ak anarchie buñ ko wax wërta am ci dëkk bi kon nag am na liggéey bu rëy boo xam ne si am na fi yaakaar naa junj nga ci léegi nii foo wër foo wëlbatiku mm-hmm. fu neex waaye jug dara fu neex waaye teg dara ah. kër yi amuñu këyit amuñu dara <coughs> loolu léegi yow en tant que euh, technicien mm-hmm. de de l'urbanisme mm-hmm. loolu xëy na mën nañoo tëje ci tom boobu yan xalaat nga ci am euh, ci au niveau déjà de euh, de la mairie ak ak acte de décentralisation bi ak autorités yi nga xam ne si xëy na it nekk nañ fi war a impliqué wu ci ci ci question boobu mais it ak ñun ñi nga xam ne amuñu loolu Touba dëkk fii kenn ku ci nekk am na lan nga yaakaar ni moo war a doon taxawaayam ci wet googu. waaw man de damay wax ni. murid laa Sëñ Tuubaa laa yaakaar tey ëllëg eh, wax dëgg yàlla sama sama xol laay waxal dëkk bi mel neexuma man damay wax ni léeg man ndar laa dëkk ñaar rakk bu amee day fees del del del del man bu ñëwee fii ci ñaar rakk day yéemu waaye bu dee bu dee man maa ngi seet kër Sëñ Tuubaa fu dëkk Tuubaa bu ñuy fi nawet fii marché Ocass bii da yéemu. ndox mi day taa bu ci jumaa ji loolu c'est pas normal bu dëgg yoon ah? te euh, doomu euh, sëñ Saliou nag yàlla nu baaxee muy doomu suuf ba mujj si suuf référence la affaire bi lu yomb rek la loolu ni mairie bi tey di ñu fi nekk tey nekk de décentralisation tey nekk mairie nanu toog xalaat point par point toog ak xalifi général des mourides. jataay boo xam si day day toog ñu wéetoo moom mm-hmm. ñu leer ki lépp ndax leer na bu ko leer bu ko leer dañ dugg ci ba ndax sëñ Sall noonu def ndax xale bi bidam ku koy wax xam ñu dara bu lu wax ne rek sëriñ bi dafa dafa nekk déedéet yow mu yow mi teg ci mairie bi yow la yaa yow la fi teg yaay baatam ngeen conseil mm-hmm. ndax yéen kenn voté wu leen da la fi teg mais na ngeen na ngeen fexe nag ba toog moom mm-hmm. jël seen temps point point bu nekk nga wax ni que lii ak lii liñ ci yaakaar hmm? bu leen neexee itam yàlla a le gouverneur y a le préfet nekk ñoo waxtaan mais il faut kooku mairie bi moo koy doxal affaire muy yore police affaire ndax dëkk bii li fi ay ay jaay ay mat ay garage ci yoon wi mais dëkk bu xam ne amul ANACIM kooku c'est la mairie mairie bi mooy travail am def de police def tekk ci yoon yoon na da ngay dëgër en fuite ndax yoon yàlla yoon jox na la sa sa sa matuwaay yëpp. waaye pour man daal tey bu noon bu ma noon man naa fexe ñaan xalifa bi bu dee ñaari fen mais bu dee gànna ma toog wéetoo moom ñëw ci këyit kër yi ba mu leer ko nag këyit kër yi moom c'est important ndax moom ma ñu wax am xëy na sëriñ sax daa ci bu ci mu sax ku mel ne sëriñ Sidi Mbacke mii chabdulaat sama sëriñ sama xarit yàlla na fi yàgg tuwéer moom yor dëkk bi ñu toogoo moom ba noppi ndax moom moo moo moo yor dëkk bi ñu wax ak moom lépp ba mu leer ñu posé question yëpp moom sax man ne wax si xalif bi wax ak moom mais c'est important il faut ñu def ko a communication. effectivement sëriñ si li xam ne tey mooy moom dëkk bi laaxaatkat mi xam ne tey moom si si ñu fi tey di sëriñam sëriñ si di suñu sëriñ ñëpp di suñu xarit maire bi nan toog point yi surtout affaire këyit kër yi kooku vraiment c'est important moom ndax këyit kër bu amee rek yëpp day yomb. mais bu fekkee également këyit kër yi doomu sëñ Tuubaa de sëñ Saliou ànd ca Alaaji Baare ànd ca kon kii war na ca ànd waaye nag nañ jaar ci sëriñ Sidi waxtaanam man la man man laa prise bëgg ah. yi sëñ Saal lii la ca waxoon. Hmm. Alaaji Ba lii la ca waxoon. jàngal ko ko lu yomb la moom boobaa yal na yàlla sax sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, jox ko jox ko baat bi day signé rek ñu am suñu kër am suñu këyit nag muy xarnu bees peq. effectivement yàlla dimbali nag ba bi kii ñëw affaire adressage yi. lu amee ci yaakaar bi na lettre ñu kër yi am numéro yoon am ay ay tur comme Dakar muy dëkk bu rafet taaru du du dëkk boo xam ni dafa mel ni dëkk bu doo xam ne bu fi ñuy guddi bu fi ñuy heure bi doo gis dara dëkk bi taaru. effectivement dëkk bi dëkk Sëñ Tuubaa la. bien sûr ah tey nag au boo amee cent vingt cinq ans. Mhm. waxuma na mel ne mii du man a war a mais urum bii na taar rafet du am du am du am fos du am suuf su xam ne tër yëpp day goudronné loolu c'est important mais xëy na béy ñuy wax ci affaire mobilisation dëgg la gars yi daanu waaye a na nekk nit lu Sëñ Tuubaa bu ñu jëf ko. am na jëmale du affaire ay daanu. ñu jëmmal ko di jëmmal ko te jëmmi ji ay xel a koy doxal ak àndandoo. dëgg la man man nag man ci wàllu woowu. rëy ma rëy ci. xam naa daal. Hmm. Serigne Saliou moom yar yaa yokk leeram. wàcc na moom. dëgg la Alaaji Ba tam wàcc na. Serigne bi itam te la nekk na jàppale ngir yàlla yaa Serigne Sidi Cheikh Abdou Lahad may Cheikh Abdou Lahad. Hmm. toogoo moom. dëgg la musul am. mais conseil bi nañ toogoo moom ñu suñu temps pendant au moins ñaari fan point par point ñu wax ko ñu jox xalaatam ñu jox suñu xalaat ku tënk lépp gis Serigne bi ñu avancé mais kii kii normalement mais war na ñoo xam ne këyit kër sëñ Saliou bu am na ci allah yi baar am na ci état bi am na ci loolu tey suñu suñ suñ njëriñ la mais bu ko xaaree nag jërëjëf jërëjëf sëñ Amadou jataay bi am na solo xam-xam génn na fi te it yaakaar naa ni njariñ rek moo fi génn euh, ma dolli ci nii it sëñ Sidi Mokhtar it wàcc na mhm. ndax bi bi ak see toog rek daan nay daal di décentraliser ku nekk dénk nag la mu koy dénk mhm. sëñ Sidi bi mu ko dénkit mhm. dénk ko dënk bi nga xam ne dëkk bi nee na ko wuutuma ci lii mhm. yaa ci sama loxo yaay sama mhm. léppit moom it wàcc na jël na une équipe jël na nit désigné ko lu ñu leen yéen yéen war a soppalu kon lu sooxe ñooñu la ñu war a kiiwaat war nañoo jéem a formuler la vision plan directeur bi ñu war a euh, aménage ñu ñu def ko su ko defee fu ñu gagee dellu nag ci kilifa yi fu ñu ci toll it communication bi di man di am xam ne lii la ñu bëgg par rapport ak sëñ bi délégué leen ci loolu. mel na ni loolu kon am nañ ci yaakaar ni dana ndax bu fekkee foofa conseiller nga fa. te xam na ni sëñ ji li ñoo ngi koy ñaanal mu am ci ndam ci lool ci commission boobu nga xam ne mu ngi koy jiite euh, danañ am yaakaar ci ni. les vraies questions doon ko fa posé. te su ko defee ginnaaw une équipe la. loola dana war a mën a jàll kon information bi fa mu war a jàll. ngir problème yi war a mën a saafara. ndax tuubaakat fi mu nekk nii daanaka da mel ni boo génnee. foo mu wëlbatiku anarchie la bordel la. lu neex waay def. ci loolu sax lu neex waay taxaw. ci loolu sax ci loolu sax ci loo xam ne amoon na jamono Cheikh Abdou Lahad pour wane ne Cheikh Abdou Lahad dafa doon liggéey administration bi ki nekk urbanisme à l'époque jaxate sëñ bi daf ko doon ànd ak moom di ko woo ba tax moo ko toppal këram ca Mbàkke ca ca ca Tëngéej te Serigne Sidi mii tey mooy Cheikh Abdou Lahad. nga wax li ñu bëgg rek. mais nit ko bu waxul dara nag da seetal. mais boo demee ne lii mais da la déglu. <laughs> jërëjëf loolu la. jërëjëf xam naa li ñu cëraloon ci waxtu jeex na. Euh, waxtaan wi am na solo lool ñoo ngi lay gërëm bu baax si sëñ Amadou ci disponibilité bi ak euh, jot ki nga xam si jox ngoñ fi ak it euh, li nga fi waxtaane te am solo lool mm-hmm. tey lii leen seen web tv alazar touba point com andiloon ci touba paradis sur ñoo ngi leen di dox jox di daje ba beneen ñoon mm-hmm. di sant suñu caméraman ak équipe technique bi yëpp